Heavyweight.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 nee nañu waa ji amoon na jabar ëskëy waa ji ci auberge bi mu nekkoon ak nekkaaleem ci la ko suñu borom moomee maanaam fala la bakkanam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bi muy sukuraat gérante auberge bi ak nekkaaleem bi ñu ngi ko doon jéem a sowee waaye furaas dalli xëddeen booba ndogalu borom bi ñëw na ci lañu ñu woowee mu ñëw fekk neew bi ab serviette daanaka moo ko muur ay waay ci lañ ko jëlee yóbbu ko hôpital mbir mi nag mu ngi xew di bi weesu bi leen police dégloo nag gérante auberge bi moom bàyyi nañ ko mu ñibbi li ci gën a ti doy war nag mooy bi autopsie bi génnee dafa wane ne waa ji dafa mort mort naturel maanaam ab crise cardiaque moo ko rey dëgg la nag yàlla xam waaye nit war nay sabab lu rafet waaye am soxna ne ko fa ñukk ànd sa nekkaale dem di fanaan ci ab auberge ba yàlla jël fa sa bakkan yéeme na moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax la xew ca Pikine doy na war ab waay bu yor ab kat bu weex moo fa génne pistoleem tiire ko ab taximaan gaañ ko gaañ bu metti ba sofooru taxi baa nga koma ans nekk ci diggante dund ak dee mbetey cowboy ma ne waa ji ci pare-brise arrière bi la dóor bal bi tuy tuy cey mim réew police nag mujj na koo teg loxo waaw góore waay xam ngeen ne bu yàggul dara Ousseynou Diop defoon na lu ni mel ab taximan dóor ko balu fetal ba mu jaare fa ñàkk bakkanam moo tax collectif sofooru taxi ñu ngi yuuxoo ko woote wàllu ndax nee nañu amatuñu benn sécurité réew mi nag léegi dafa mel ni dañ koo bëgg nga soppi Texas ko waxal rek ñoxor njaay mu génne fetal similak saala mu tiire ma ne dafa yomb waay li koy dindi nag du lenn lu dul ku fàtte tay ko ñu teg la ci penc mi fat sa bakkan waaye Sénégal ngay gis ku faat nit ci ay anam yu doy war saytaane yi jóg naan nañ ko baal xamoon naa ko dafa juum waaw ki dee nag moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax la xew ca Casamance doy na war mbir mi mu ngi ngi xewee ci département bu Bignona ci village bu ñu naan Jégun ab waay bu ñu naan du Jéeme dañ ko woo téléphone jox ko rendez ci béréb mu daje fa ak buróom yi waa ji di Amadou Jéeme bi muy dem xalaatul sax ne lu ni mel dina ko fa dal gaa yi bi ñu ko woowee ba mu yegg si dañu ko fusillé yaram bi yépp lañu doori bal mu dee ci saasi Amadou Jéeme moomu nag ñu faat nee nañu ab ancien combattant MFDC la woon gars yi bi ñu ko faatee ba noppi dañoo daw dugg ci àllu Casamance bi ñi ko faat nag ñu ngi njortu ne ci waa MFDC la bokk nee nañu mbir mi mën naa nekk problème mu règlement de compte néewu amadu Diémé moomu yóbbu nañ ko ci centre de sante bu Thionkesin moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax la xew ca Tiwaawoon doy na war Cheikh Tidiane Kane soxnaam Sidi Penda ba am ñaar fukki at ak juróom ak seen benn doom bu am ñaari at la ñu fekk ñu faatu musiba naaru lay nee nañu ki ñu njort ne moo def yëf yi du kenn ku dul Cheikh Tidiane Kane ëskay li doy waar nag mooy nee nañu sa waay na ci bis bi ay jàng ba ci ngoon gi waa ji présenté wul benn signe buy wane ne war naa def lu ni mel guddi gi martir bi amee Cheikh Tidiane Kane gunge na soxnaam soosi di penda ba ba ci station essence bi muy liggéey yee li tax nag ñu njort ne moo def yëf yi dañoo fekk ci béréb bi meurtre bi amee ab lettre buy expliquer ne li tax mu def jëf ji moo bind lettre bi am bind ko loolu nag lu ñuy caytu la néewu Cheikh Tidiane Kane ñu ngi ko fekk ci ab terrasse buum takku ci baat bi doom ji moom it faatu tëdd ci kawam ay waay yéeme na yéeme na ubbi na ci ab l'enquête moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ca tuubaay doy na war ab xale bu am 14 ans buy wuyoo ci turu Fallou Ndiaye moo fa jam beneen xale buy wuyoo ci turu Cheikhouna ba mu nekk ci diggante dundoo ak dee mbir mi mu ngi xewee ca marché Ocass ci fi ñu naan réso ba sapeur yi mujj koo évacuer ci hôpital bu Matlaboul Fawzayni cay mim réew gone gi def yëf yi nag di Fallou Ndiaye police teg na ko loxo ñu naan déetawaay fii ci Ndakaaru ab douane jàpp fi ab doomam door ko ba mu faatu moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graw corona la wax la xew ca cité imbécile jéggi na dayoo CCC la ñu fa kindape yóbbu ko fa violé ko lu toll ci fukki fan waaye ya bon ba noppi jël xale bi déposé ko ci rond point liberté ki def jëf gi nag du kenn ku dul El Balde di xaritu baayu xale bi xale bi ci boppam nee na El Balde moo ko ki ndappe embarqué ko ci taxi par force yóbbu ko cité imbécile teg ko ci loxoy beneen femme bu ñu naan NS Ndiaye li gën a ti doy waar nag mooy gone gi nee na gannaaw bi ko El Balde violé femme bii di NS Ndiaye da doon ut ay client yuy tëdd ak moom non police nag teg na leen loxo di war ñi femme bi doon jaay xale bi ba ñuy tëdd ak moom ma ne nag yëf yi fi laa koy yemale mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz